kon yéen dañ leen a espionné pour ngeen may topp da ngeen may espionné voilà léegi nag Elena tax ngeen di fen di wër di fen maa tey maa tey doxaan dem leen ci Elena ngeen na ko tonton jogoy day doxaan ba xam lu ma mënal Elena maay borom këram maay jëkkëram te waroon naa taxaw fii tey Elena waroon naa taxaw fii ma def li may def faalaw ma Elena faalaw ma seen baay faalaw ma seen waa kër doo jógee xam nga taa Elena de sauvage merde pour tous ngëj yow yaa ñu gën fii ngay taxaw rek da nga gëm sa bopp ni dafa seet. ca ca ca ca bébé jógee ñun ñu ngi dem. <laughs> wuyu ma wuyu ma wuyu ma. soxna si siin yow moom dawoon na yërmande yaa tax may wax maa la ko ñaan rek entre frère eh